xabaar yi lañu leen di baaxee tey ci talaata gi yem ak juróomi fan ci weer wi ma di leen dalal jàmm danañu leen xamal ci digg xibaar yi kàddu yàlla sana gàññi saaxo jokku njiitu réew mi ki Sall gannaaw ba mu demee bokk ci kuréelu Ousmane Sonko gi daañu leen faram-fàccee la waxal ndawi Benno Bokk Yaakaar gi di Ibrahima Sy ne dafay xaru te buy dem ñaari doomam ya lay àndal mbirum élèves ya doon yàqate seen classe ba ñu jëlee vacances daañu ci delsi gannaaw ba ñu tegee loxo yeneen juróom ci fukk ak benn ya ñu doon ca duut baaraam ci député Bara Dolly daañu ci ñëw ak yéen tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taxirlu aslëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal mu ngoog euh, bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teelu ci Dakar Buzz da leen yàmm ci xibaar yi njiital mouvement révolution verte di membre ci conférence des leaders bu benn bokk yaakaar la mu fas yéene moo di xaru na mu ko xamlee ci ab waxtaan mu mu sekk ak sunu ay naataango nee na nag fukki at ngi muy génne ay fonds yu boppam ay partenaires di ko jàppale waaye daal dafa ruiné wu ndax agence gañu dénk grande muraille verte yoreel nañu ko juróom-ñaari millions fukki at ngi muy ànd ak benn bokk yaakaar amu ca dara léegi mi ngi daw ci ginnaaw agence googu Ali Aïdara jiite ba tax na rek mu ne dund gi safatu ko dara ndax bor ya mu amee yépp nee na nag dana bind ñaari bataaxal njiitu réew mi Macky Sall ak waa këram ba ca noppee dem xaru wax na it ne dana xamle lépp ci lettre ya te buy xaru ji ñaari doomam ya lay àndal njiitu réew mi dana ko fekk aéroport bu ñibbisee te dina jot ci bataaxalam Ibrahima Sy wax na it ne dina xamle ca biir turu ña waral yépp mu bëgg xaru Lansana Gagny Sakho mayatul dara njiitu réew mi Macky Sall ci ab waxtaan mu sekk ak sunu ay naataango ex DG ONAS gi nag la mu xelal Macky Sall moo di mu teg waxi ñetteeli mandat ci suuf bu ko yeboo yeggali chantier yi mu fi tàmbali te dem yoonam lansana nee na ñaari mbir dong tax ñenn ñi bëgg Macky Sall des fi benn bi moo di ñoo ñee dañuy dem chômage ñeneen ñi itam dañu war a am ay jafe yaakaar na ni nag Macky Sall du sampaat ndëndëm avocat bu siiw boobee daan wax maître Abdoulaye Wade mu présenté wu ngir am ñetteeli mandat tey ji moo koy waxaat kii di njiitu réew mi Macky Sall Olivier dossier Brice Sylvain weeru janvier atum la ne woon kaso ba ndëgëni ñu di ko toppee pédophilie détournement de mineur ak acte contre nature les échos di xamle ni tey ci talaata gi la waroon amal audience ca chambre criminelle lu fukki gune yu ne woon centre de formation de jeunes footballeurs Dakar Sacré-Cœur la fas yéene lool gannaaw ba ñu di ko dut baaxam ne da leen doon sàkku juróom-ñaari fan ci weeru février atum la mbir ma lañu ko jàppoon njiit ya ëmb ci kuréelu ku jég yi di yeewi askan wi ña nga woon altine démb gi ci diwaanu sigi a source su mi joxe xibaar wi di xam ne ni dañu demoon seeti waa kër ña ñàkk seen bakkan ci manifestation ya ñu doon amal te yoon tere woon leen ko aljuma fukki fan ak juróom ñaax ci weer wi Ousmane Sonko ak nawlem ya nag demoon nañu bi ca naa ci kër ñaar ña ginnaaw loolu nag tey ci talaata gii dañu waroon a amal ndajeem waxtaan ñeel wàccaayu campagne yu législative yi Idrissa Sarr ñaar fukki ak juróom da doon bubboo ci réseaux sociaux yi ne madame Dior la tudd division spéciale de cybersécurité ñoo ko teg loxo di ko toppee usurpation d'identité collecte illicite de données à caractère personnel extorsion de fonds ak viol donte benn victime dong teg plainte ci ndoddam libération mi joxe xibaar wi di xam ne ni nax na itam yeneen soxna da doon wax ni concepteur graphique la dëkk Kër Massar kenn ci ñamu doon nax na nag dafa gis benn annonce ci dippee boppam mu defoon numéro ci publication bi yëf ya soxal ko mu daal di woote ka ni ko moom la madame a dal koy laaj CV ngir wutal ko liggéey ca Auchan ginnaaw loolu madame Dior dugal ko ci benn groupe WhatsApp gu mu dippee offre et demande d'emploi dugal fa message gu mu di leen xamal ni rek dafa am benn soxna bu di wër ay masseuse ngir salon bi di lifestyle bés bu yàlla sàkk nga am ñetti junni te bokk ak transport bi niki noonu mu woo madame Dior mu góor la ko boolee loon nee na ba mu yeggee fekk na fa ñaari góor kenn ka tëj buntu baaka caabi ba ko faak doomu madame Diop bi ci néeg ba noonu na waa ji tëkk ko ni da koy tëddee ca ëllëg sa ko ni yor na ay vidéo ci su ko yónneewu rek xaalis da koy tasaare mu ni ko na ko yónnee fukki junni way laa mu def na ko ndayam juree woon dal ko yónnee vidéo moom itam mu daal di ko yónnee xaalis ba noonu la seeni mbir eggee ca yoon Ousmane Dieye moo di élève quatrième nga ñu defeere parquet ba gannaaw la amal seen coppite ay ñaawteef ca lycée Ousmane Sembène bu Yoff boo moytuwulee nag juróomi moromam danañu ko fekk ji gannaaw ba ñu leen placé en garde à vue ca gendarmerie wu Foire proviseur ba Awa Sarr Ndiaye moo woote conseil de discipline waaye nag fukk juróom benn élève ya ñu identifié yépp teewuñu ñenn ci ñoom sax jot nañoo génn Ndakaaru ngir mucc ci poursuite judiciaire ya ni ki noonu gendarmerie wu Foire déglu nañu rek juróomi élève ba noppi ginnaaw jëlaguñu nag dogal ci ñoom dañuy woyal conseil de discipline ba bu tay bi sax seen ay wayjuru dañu ca waroon a teew la ñu def ca seen salle de classe ba nag ma nga fa tege ba ndëgëni ab soudeur métallique moo faat benn jaaykatu xar ca Dalifort weti seeras moom gëy paaka daal jam Serigne Male Thiam bu nu sukkandikoo ci l'autopsie ba ñu defee l'hôpital Idriss Pouye Serigne Male Thiam arme blanche lañu ko faatee rapport médical bi di bidolub choc hémorragique ka ko faat altine la ñu ko jàpp ay boori 11h fekk ma nga yéegoon ci benn charrette nekk ca rond point Dalifort ba ñu di ko jàpp la ñu gis paaka bi ci moom ba ñu ko dégloo mu ni leen euh, Serigne Mallé xottu bute la ko gaañee ci loxo ba ñuy xeex ba ñu ba muy fayu nag mu jam ko paaka ba ña nga di ko toppee meurtre mi ngi jamono ji en garde à vue ca commissariat wu Pikine ñeel l'enquête bi fukki fan ci weeru juin la ñu ko tegoon loxo moom député Cheikh Abdou Bara a ginnaaw ndajeem dox ñaxtu ga Yewwi gi la ko doyen des juges nar déglu ci dossier bi gannaaw janoom beeg magistrat bi nag ay avocat député bi danañu mën a jébbalu pa demande de liberté provisoire ay source di wax ni parquet ba mënees nañu ko ko nangul baaxa dolli la di ko toppee mi ngi yemoo kàddu yu teggin yemu yëkkati woon jëmale ci njiitu réew mi Macky Sall ca ndaje ma woon place de la nation a ki noonu ñu di ko toppee offense au chef de l'État diffusion de fausses nouvelles ak diffamation soxna si sant bëgg sa jëkkër ga mu bokkoon ñu jiñ ko ni dafa sàcc seen nattu tabaski ba moo ne woon nag secrétaire général kuréel ga tribunal de grande instance des flagrants délits teg na ci ndoddam juróom-benn weer yu mu dul tëdd ba noppi fayloo ko juróomi million ñeel dommage ak intérêt ba xaalis ba réeree moom la ñu ko jiñ doonte newuloon trésorière ba ndax ba su natt ba moo téye woon kees ba ay waxtu te booba yeneen membre ya ñëwaguñu woon sax yoroon na itam ñetti caabi kees ba kay faral di denc xaalis ba nag ñëwuloon ba sa góogule mu naan Roqaya Mbay ni ko rek na ko jox trésorière ba di Germaine Sow bés ba ñu waree séddoo seen xaalis nag la ñu gis ne juróomi million ci koppar ga naax saay na Alimatu Sadia ab doomi policier bu dem retraite la da daan falsifié ay chegu njaatigéem jaarale ko ci ab stylo bu nga xam ni encre bi mënees nañu ko effacé ngir sàcc xaalisu entreprise googe nga xam ne moo ne woon directrice administrative et financière ga faf nag ñu jàpp ko di ko toppee faux en écriture privée de banque usage de faux ak abus de fanweeri million ci sunu koppar ñu teg ci ndoddam ñaari at yu mu dul tëdd gannaaw ba baayam fayee koppar ga lubal na nag koppar ci ñaari at te liggéey na fa ñaar fukki at ak ñeent la mu xamle ca tribunal ga moo di big boobee njaati gémbee ko jëndoon ngir bu ñu amaan ak euh, administration fiscale bi way laa duwaan mësul dugal koppar gi ci poosam ndax amu ci kër amu ci woto tamit na ko lool rawatina la baayam génnee ci poosam daal di koy fay mësul bi surprise ga ñetti atu kaso la procureur tribunal des flagrants délits fas yéene teg ci ndoor di Sam Kairé ak Khadim Gueye atum 2020 la ñu nekk kaso ba ndëgëni ñu di leen toppee volant réunion ak la ñu taxaw lépp kuréel ngir amal ay ñawteef ñaari at ci ginnaaw Sam Kairé la ñu yebaloon rek mu versé ji recette usine Gandigal glace ca banque ba bés googule nag mu ni boppam nga doon métti waxoon na sax gérant bi mu sant ko keneen waaye foofee la ñu sàccee woon saag ba defoon 19 millions 560 mille muy xamal juge bi ne rek rek gendarme yi ah, dañu doon koo xoqatal ci l'enquête ba dem nañu ba maas ko rek ngir mu wax ni moo sàcc xaalis bi ah, juge bi fàttali ko la mu waxoon ci l'enquête yu njëkk ya Sam Kayre dafa ne woon rek xaritam bi di Xaadim Gueye moo jël saagu xaalis bi ah, bés googu le nag ñoom ñaar déggante nañu diggante 7 ba 13 heures ñaar fukki yoon nag ñett waaye nag Sam nee na Xaadim mi di ab sëriñ ay ñaan la ko waroon a defal ak saafara ngir méttitu boppam ba Xaadim weddina bi ministère fan ci weer wi la ñu dàkkaat seen atte tàggat yaram la ñu di ko ndax keppee ñu leen ko waxee woon a ci bopp bi mbokk yi Sadio Mané nee na kenn du liggéey Sénégal buy joué la Bayern na gannaaw xéewal ya mu def dëkkam yépp di bambali Mané la ñu def jàmbaax yi Sénégal nee na waa këram bégguñu woon ci moom ndax football la gënoon faratal ni njàng mi dëkkam nag dëkk bu ndaw la ba tax na doon fa footballeur professionnel du yomb waaye moom dafa a gëm ni rek yëf yi mën na nekk mu topp la mu bëgg ba waa këram dem ba xam ni wuñu ko dara ndax lépp soppeeku na fa ci lu baax buy joué nag day mel ni vacances am seen kër noonu nag lay demee sa na ba tax na mu ni buy joué Sénégal kenn du liggéey mbokk yi lii lañ leen andiloon tey ci xibaar fii ci Dakar Buzz ñu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës ba lëkk incha allah.